fini les lèvres noires le secret avec Zo Beauty Cosmetics. ku fi sa ñuul désormais yaa ko teg sa bopp wutal VIP lèvres roses, mu faj sa a yaw ngi fii ci Ndakaaru waaye livrer partout au Sénégal Ou le 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty moi my sunu choice yaw respecté leen mais man seetlu naa ñun bu ñuy wax yow doo tontu. amee ah, booy kii de moom nii la mel moom ci kër gi ci mbedd mi la lu yemale moom bañ nekk ba bu génnee sax du si xool nit kii moom nii la mel naturellement. Kumba est-ce que yëngal li ma yëg. Papa Moussa loo yëg baa jàmm. Kumba baa xam nga ni sa maam dafa bëgg a may sam papa Seynabou. lan Seynabou xam nga mooy sa rakku yaay. mais sa papa xanaa sañuloo loolu de eh, n'est-ce sa yaay bi mu gaañoo léegi am na yeneen est-ce que. six mois seulement. six yow sa yaay ba mu gaañoo six mois la mat ñu bëgg a jël sa rakku daal di koy may sa papa. mais jamono bi moom ku dee perte. waxuma lool sax yow papa loolu fan nga ko déggee. Kumba. maa dégg sama maam di si waxtaan ak sama papa mais ni ma leen déggee ñuy wax sama papa dafa mel ni d'accord agul mais na leen leer ni mariage boobu dafa amee. mais comme amugoo ci lu la leer baal ba ba am ci lu la leer ngay doo ko wax. li ma leer ba leer mooy mariage bi du fi am. manche va baa nga ma de sama jàpp ya? iya, jam. noo def nga si jàmm sama sœur la seen a bëla jam. maa ngi si jàmm ça va maa ngi si jam. asa na ngi nii ça va bien borom goloba textile mi ngi nii yomb na cheru nga sama xew moo ma solal ba mu baax raar na doo ko gis fenn te nag moins cher xam nga dama la dugal ci lu bon asan dafay xew ba bëgg nga sañseel ko lu rafet nga saajal ko. kon daal fii mooy global textile. man li ma koy dégg yëpp ah ndekete nakarewul xam ba pare waaw Parcelles Assainies la nekk. Hmm. unité 12 dend ak Sénélec bi. waaw ah. eh fii neex naa xam de. trop sax yii macha allah. rafet na. eh Sénégal wala mauve bi sax. xoolal blanc nag moom. gaay dañ tàmm di ko def seen ay mariage hmm. man nag dama bëgg a xolal xoolal Assane fu spécial. kon sama couleur bop Assane xol na ko lu bax ko. amul ben <laughs> xol taamat bala bi gisoon na la ci de. Assane ah, mo bi la bëgg. mo <laughs> bi damay jàpp. am na xel. la fi mu ne yàqamti naa bés bi ay na wala amul won

boobu mooy nga. dinaa ah, li garaaw na de. waaw Diop yow comme ko dofoo nag de. ah ko ci biir ah, ah Assane ah, <laughs> kontaan naa. maa ngi bëgg maa ngi <laughs> premier solu la bintu xaddaam nga daal su ma gisee ay tay baasan la may fàttali sama mag di si yàlla si lii dafa fees ci nag te lu mu ñëwul baaxul bintu xaddaam mii kat lu mu ñëwul baaxul moom nga toll ndam si si lu ma sa sol bintu xaddaam ko ñaw kenn day bintu xaddam ci réew mii eh, lu mu daggul baaxul moo tax sama xew bii dama ah, bakkalaas rek bitu xàddam kase xanaa xamoon na fi mbay ndeysaan sandam si yalla sa bu daan sante ba génn ni dañ dan génn di ko di ko ala ba nga jombi nga de xanaa si boutique bi dama dem ba am choix yow ndax bu sa morom nga loo ci xamul ay machine ay tissu moom mooy daggal boppam bii dem. daggal ko boppam tànn la ko ci la ko neex indi ko. moo tax tissu doo ko sol gis ku ko sol loo mariage ba gis ko mu yow. dëgg la eh, ñëw. bii. Kumba. war a ñëw yow mu bi. Hmm. ak dégg. dama xel di dem sama mag di dem si yàlla na kii. laaj sama mag ji ak maa bëggoon ndeysaan waaye fekkewu ko Seynabou ma laaj la yow buñ la mayee Vera dooy toog di xalaat maam bis bu ngeen waree bokk lal bi lal bi na fi mbay doon tëdd yow loolu du daw sa yaram kumba daal dangaa neex na kumba <laughs> loolu de man mii firigew ma ñeente <laughs> billaay yow déranger ma eh war a laa eh, rek yàlla may na la de ndax naa nit ñee bokkul rek bu doon man la mën de sama fukki xel ak juróom xalaatul loolu sama yaram sax moo ko njëkku tanangu ay Kumba arrêté nag li charia da koo daganal sëy la de Kumba bi daa commencé zaade ah <laughs> جنب صفي هذيك ما شاء الله وي كثار المليمة هواية واش داير؟ مو بين جنب Aisyah foo jëm heure bi sama kër bàjjan laa dem waaye xool nga heure bi jot sept heures du matin doo xaar sax ba vieille yow nga tàng ko yow Aïcha li nga bëgg a def ñaaw na de kan laay tàggu nga ne vieille laay tàggu daf may may paas wala lan la yow yow fii lu ñaaw dafay jeex ba pare gi fii lan moo gën a ñaaw li vieille def ku lan moo gën a ñaaw li vie def waxuma benn ndànk gis nga kër gi maa fi pare te dootuma fi tegati sama tànk fii dama fee doyal sëkk sëkk sëkk ak ñaaw te fii la mën a yem fi ko vie yemale fii fii la mën a yem gis nga man si maalaate benn yoon laay tooy vie comme moom yaramam bii deretu gor daw ci circulé wu ci wëru ko man deretu góor mooy daw ci sama yaram bii comme nag amul kilifa ñëpp tere nañ ko mu ne dee day takk sëy bu sama yaay moom ba ko àddina ak laaxira kaaw moom bu ñëwaatee Dakar vie gaa ñu yóbbu kooram Fuuta ndax fa lañ koy robbi te man mii de wax ak yow man saw fii araamal naa fi yow yaa ngi imaginer vie li mu def man kumba bu nekkoon keneen sax la vie takk man vie bu doon yow la takk du ma metti bu doon keneen la takk duma ci wax mais ni mu ko defee moo ñaw amul kenn ku muy takk ku dul Seynabou Seynabou bi nga xamante ni bëggul na fi mbay tey bëgg ko ëllëg bëgg ko gannaaw ëllëg sëy na bu nga xamante ni daa bañ na fi mbay ba ni na fi mbay duggee ci biir suuf eh kooku la vieux di takk man xew boobu duma fi fekk ndax jomm naa loolu xoolal xew leen seen xew sama yoon nekku ci vieux nag moom banaa ko àdduna ak àllaaxira te du ma koo suur këll. Aïcha Aïcha di nga wax lépp dëgg la man kenn ëpp ma naqar ndax man na Nafi mbay dafa doonoon sama lépp sama yaay sama mag féete moom fépp man fi ma féete woon féetewu fa kenn mais nan la ñuy def dañuy rafetal rekk man biñ demee di jënd tusi ba dugg naa fa ba génn waxuma ndax am naqar mais lii nga bëgg a def laa la wax moo ñaaw xanaa sax nga toog ba ñu taq ba pare nga dem ay Aïcha déggoo ma ne la lii ñaaw ñaaw na ba pare te dootu rafetati yéen nag mën ngeen maslaxa mën ngeen raay raay mën ngeen nëpp nëppal waaye man gis nga man deretu naafiq daw ci sama yaram bi wala déggoo li ma la wax na fi may moo ne ci sama xol bi te moo ci ne ba ilaa yombi diin te gis nga lii ma moom balaa ma koo wàccoo mooy dama koo fekki ca bàmmeel bee mu ne man góor laa bàyyi ngeen ma ñàkk ngeen ci àddina koo leen dul amati ñàkk ngeen ko ba ilaa yombi ndappet loolu moom ba sa ngeen xam ko waaye li ngay ceeb na fi mbay su boo fi meree fu ma koy lekk jee bàyyi mu ñëw maa xam nga leen man li ma metti yëpp yëpp mënuma koo wax man moom xamul xaw ma ku ñàkkul mais man ñàkk naa sama na fi ma Viu? Wow. Animal. Nakala. Boy, je suis lá por aí, un Mas eu, viu? Yo vrai já, yo. Viu, mano, eu yow fiñ jaar Viu até eu, eu nga me nga ma suufu ci ay Ak sama digin ak seenu li ma la ci wax yépp. Li may Burkina di la wax waxu seenu ak Junior. Nga naan ma boy bi. Nek da ko don sa vieux yow ban genre nit nga vieux yow kuy wër xaj la tu es le pire des pires vieux ba ki dem sa jooy metti ay jooy es rek la di mais vieux yow vrai dëmm nga booy te xoolal sama diggante yow c'est fini Alima, là tu me déçois man je te croyais plus mature que ça man je ne te comprends pas dem je goudi. ma ak yow wax nañ téléphone longuement ñu waxtaan ba couper amul ben problème ñu waxtaan ci li bu mu féete et nga xey ni ñëw fi dimi indil ay problème yu kenn mënu comprendre. c'est parce que jaamu ba. ok c'est parce que yow lu mu la bëgg wax xeeb d'accord je vais te dire une chose man daa am bokk ci famille la nekk. Je am un ci man man ma am cër ci ñoom fin bi yëpp concerté wu am suis un ci man duma ko parce que dañoo am cër ci man ci man a dogal lu def man waxtaan naa yow ba mais Elimane yow kuy wër cuune rek na man may wax ak yow. d' c'est fini. d' accord. yow yaa ma mën a copain vieux.

tu peux sortir nga génn sama kër. yow kañ nga am kër. xanaa nga am kër. d'accord merci. yow bi ngay jógee Fouta man maa la dal. merci yow loo am grâce à moi. merci nga may wax ay waxu kër. ok sors de chez moi. va te faire foutre. yow doo nitu dara génnal sama kër. solo ma yére. xaw ma sax papa yow nga di nga forcé ba mariage bi am. papa sax loolu waxuñu si woon ba mu féete bopp. mais yow papa yow rusoo sax yow di bokk sama la yaay ci benn lal papa yow soxlawoo lool. ça se voit que ni nag kër gi sama yaay kese moo fi bëggoon te sama yaay dong moo nekkoon sama xarit dëgg la nag ñaax naa ko moo tax tey yow ak sama maam ngeen bëgg a taxaw yàq sama àdduna.

moom sax yow cinquante mille yi ma topp di ma ko laaj pour ma jox la ko te Papa Moussa yow amoo soxla godaas ndax am ngay crampo yaa ngi moom fii amoo soxla bal bari la nga ko Papa Moussa lan nga war a mën a doyee cinquante mille papa yow nag sinyo ñu nay mu ngi lay dikkal parce que auparavant nag mu doon jox doo calculer mais léegi da ngay calculer bon cinquante mille yi c'est juste que caaxaanewu ma ko caméra cachée laa ko jëndee. caméra cachée. bon parce papa kër gu ñu dëkkoon fële yow umpale woon ni seen moom parfois day nelaw. Mhm. te sàcc nañ fa suñu télé deux fois. c'est pour nag moo tax ma ni xaaral jënd caméra cachée même su ma mënul jàpp sàcc bi ma ma tas ko si internet bi. <laughs> boo ko tey si internet bi yow ban njëriñ la lay amal après. ah papa léegi internet moom ku nekk boo fu duggee jamono ji moom parce que wan nga àdduna daal. ok am nga saa ci daal. ah bien sûr. d' accord ci biir kër gi ak ni kër gi bindoo Pape Moussa fan nga fi teg caméra caméra surveillance fan rek nga koy teg fii. papa loolu repéré naa ko bu yàgg.

Eh, kon na fi mbay koy jébbal sa bopp naa sama bopp àdduna ak alaaxira am ni ko na fi mbay defee loo ma diggal ma def loo ma tere ma bàyyi di wéy si say waaw tey bàyyi say déet nangul naa la sa njëbbal te mm. euh, dinaa la yor comme ni ma yore woon sama wala nu ko raw mm-hmm. ndax euh, man moom laa lay xoole asalaamaaleykum bëgg naa la ça alhamdulilah maa ngi jégul de li day xew bu yam la rek moo tax jotuma la yëgal mais yow moom ci kër gi nga bokk boo ko yëgee ñu wax la ko ñàkk ko wax di nga ñëw mais bu doon lu rëy la tamit yow xam nga ni ci ñi koy njëkk yëg ngay bokk ñu ne woon nag lañ def lu yam rek comme soxna si bi mu làkkook léegi juróom benn weer la durée ngay jox rakkam ñu def takku jàkk yamale ko ci kër gi ak waa mais nag euh, takk bi indiwu ma fi. takk bi indiwu la fi. Seynabou laa soxla woon moom fi indi. Seynabou. si. Pa Moussa. Moussa ana ah, kon yow li nga waxoon nga mujj def. kër gi nañ si mariage. kii ni mu réewee. léegi réewande bu bees la jël yow li sa baay teg sa maam teg ko nga ne danga koy dindi mu lay neex mu lay naqari tak yow am na ma pare xanaa génnee na te ñu ngay xamadi yëpp posé ci sama biir kër dëmm rey la jaaleel rey sama doom ba jëgu ndara kam ñëpp ubbi seen i teg ñu ne naaw nga dañoo nga ne faax nit sama kaw fauteuil ah déedéet inspecteur Mbaye. Euh, s'il dañu jël paaka rendi ko sa dret génnul waaye yaram baa ngi tax rit ak dret ba fu mu romb ñu di ko xoole maanaam dia deewu nekk mbay du ci dara eh. Amoussa ana enregistrement bi papa waxon na li ku rey sama yaay dina ko tegg loxo Tata Ozemi deful dara sama yaay gis nga ki sama yaay mo ngi nonu nga jakarlo Pa Moussa hmm. laax bi sa yaay gisee ko moom bul ko lekk waaw mais oh Seynabou yow yaay imbécile vieux amuloo droit pour dóor ok na fi may ma ca alaaxira deful dara agarráis Bissouf yaa ngi na fi mii ngay kalaame ak tëb ka yuuxu lu ne nga dugg ci dama bëgg nga noppalu te xam ne ndeyam nii la meloon Seynabou kuy bon ku ne moom ngay dimbale ndeyam bi dafay fii ci kër gi amul lu bon lu ma defut ci àddina wax na ma lu bon lu ne def ma lu bon lu ne say nopp sama ñetti ëmb yàq na ko di baxal ay ay dànk di ma ko joxat di dox di dóoranteeg ma ni mbagg ak la mu dugg ci kon sëy na bu du mën a baax gis nga sëy na ko koo bokkal ndey ak baay nañ man maa ko jur ndax ci sama ween wi ma ko nàmpal ko sëy na bu mbonam ji moom lay deewaale dama bëgg nag nga xam leen sëy na bu ay gaa fa tax mu judd sa baay dee xamoo sa de loo xam ci sa baay xamoo ci dara teguñ ci dara ndayam dee ñu daal ma cay tuumaal wax ma ca lu nekk ndax nee nañ lan añ bu ma toggoon mu añ ca moo tax ndayam dee te araam police jël si Anna Mbaye ndeke ya ray sama yaay ba pare di faire semblant ni yaa ma jur or que juróo ma maa li ma mën a nekk ndax dañoo yàgg ya gënalante man ak Nafi mbay moy sa karaw yu bakkan moom rek nga bëgg ana mbay danga ma xagn ba nooru yaay ana mbay ana mbay Ana Mbaye dinaa ko fayu si yow ak sa doom ah boobu aka koo xam moo tax benn doom bi nga am gën a nekkoog ñépp moom laa rey <laughs> Seynabou waaye Ana Mbaye si naka ngay deewee oh calme-toi vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Nafi Mbaye

yow saraw balaa la kumba de nu ñu sondee fële ba pare kee dafa yéex a yéex a yéex billaay noonu lay sonnee waa bu baa solu na ay waa xale bi xam naa sañse na war na kaa jàpp de yéreem boobu noonu seenam bu de mayaa solu na première solo waaye gis nga deuxième solo bi police la ko sañsee police lu fa xew kumba lan dégg wax police seenam lan lan moo xew ndekete daal coow li coow li mooy Seynabou moo rey Nafi Mbaye. allahu akbar. Seynabou nan la mën a rey Nafi Mbaye yow doo xool li ngay wax Seynabou nga e ne moo rey Nafi Mbaye loolu nan la mën a nekkee yow deewut Nafi Mbaye bii nga xam ne sama mag Osé tëj nañ ko ci nga ne Seynabou moo rey Nafi Mbaye waxal leneen. Osé de mu ngi ci biir néegu Nafi mbay ji toog ba pare Seynabou nan la non loolu mënul nekk waxal leneen. rey koo bokkal ndey ak nii nii ci gratuit. dama ni police ak papa Moussa ndekete daal xel puso la xale da koy for mag da koy for papa Moussa daal moom benn montre boo xam ne day filmer moom la jël teg ko ci kaw kilim bee moo jël action yi yépp liy indi preuve bi moo feeñal Seynabou. te xanaa ci na fi may bokkut ak Seynabou ndey ak baay musuñoo bokk ndey ak ndekete bàyyi kese lañu bokk ñu ci naa mais léegi lan moo tax ngeen yóbbu Seynabou te waxu te xaaroo leen ma yéen Seynabou war ngeen koo yóbbu bañ maa xaar Seynabou dama koy lekk nga naan la lay ma yaay Kumba Seynabou waroon naa ko fee fekk Seynabou waroon naa ko fee fekk Kumba kër gi moom wàcc ah Ouzin gàcce dikkal nañu de wax dëgg fa yàlla rus nañ et puis tooñ nañ tooñ nañ la trop trop trop ndax li euh, ma la fekkee police ba lu mën la desal rek dama ko fàtte def naa la lu ne wax naa la lu ne ma jàppoon ni li ma metti woon ak naqar bi nekk ci man yëpp yow yaa ma ko teg ndekete boobu ñun ñu ngi ci erreur te ñun ñoo la tooñ ndax tooñ nit weesuwul nga xañ ko li gën a seer ci moom muy libertéem te nit boo ko xañee liberté rek xañ nga ko boppam xañ nga ko kii mu doon te tuuma xajul ci kor mu ngi sant yàlla sax bi nga ñëwaatee suñu biir ndax tuuma dafa diis trop trop ci góor ba tax na fi ñu toog nii tey li ma am lu ma lay wax loo xam ne nii carrément sama xol laa koy tibbee mooy nga jéggal ma jéggal képp ku toppoon ci erreur bi nekkoon ndax juum nañ tooñ nañ la trop trop trop tey li may wax rekk li nga xam ne carrément lii moom moo sës ma mun ko wax te ma koy tiggee tibbee sama biir xool mooy nga jéggal ma. bien amul àq li nga def rek ñeneen ñi def ko noonu rek lañu mënoon réagir. boo leen amoon beneen réaction bu bokkutal ak bii sax yoon daf may teg loxo ndax bu autopsie génnee. ñu xam ne li faat na fi mbay ci laax bi mu mujjee lekk la jóge te laax boobu ma togg ko ci samay loxo ah ku ko mën a dégg sa xel dina ñaaw ci man mi togg laax bi yàlla nag moom rekk moo mën a suturaal jaamam yàlla rekk a mën a feeñal dëgg bu réeree mu feeñal ko nag jaarale ko ci papa Moussa mii nga xamante ne sama doom la mu gën a nekk xale ci ñun waaye yàlla def mu am xel bu kenn amul woon kon dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla bu baax moom mi def lii moom mi feeñal lii yëpp tey ndax nag tuuma moom yàlla rekk mën a teggi jàmm te natu bu ñëwee ñëw na na fi ñun ñëpp ñun ñëpp la nax demam bi ñun ñëpp la nax ni rek ngeen mënoon réagir je vous comprends. bett na ñëpp te moom bi bett na ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. waaye nag vieux demu na fi may bii dafa mel ni gisoon na ko. Hmm. ñu li may gis nii sama fit bi du toog xoola sama fit du toog day def def def damay ay gént bizarre gént yi me mais bu na bi nag me démb bi man moo ma gën a tiital gént gën a jaxase sama bopp bi man daal damaa gént ñu may dugal ci pax pax ndax fii laa ñëw fii may naan samay gént fan yi jaaxal na ma torop damay gént ñu may suul nekk ci biir mbooloo mbooloo ma di reetaan mu jaaxaloon ma trop waaye mësuma xalaat ni lii muy gént tey ci moom la jëm franchement bett na ma yooyu dañu amoon ay projet man ak Nafi Mbaye mu ñëw le problème situation yi may dund teg samay projet mu ànd ceeg man ba desul dara lu ñu taxawal lépp ndox ndox bi dugg suñu diggante metti na trop ci kanam yàlla. metti na metti na trop trop ah, de ñun la bett yàlla mayal na ko loo xam ne lu ne ci kanamam moom dina ci am lu ko leer xëj na nag li ngay wax noonu génn googu moo nekk mbir mi jaam nag pexe rek la am mais yàlla moom dogal lii la yàlla dogal ci ñun dañ ko nangu te xam ne mooy li gën yàlla li gën rek lay def man de ci jamono yi mujj nii jot na ma wax ni am ngeen ay projet exposé ma ko ba mu ne woon ko man wax dëgg fa yàlla pare naa pour soutenir ko bu ngeen demee ba dara lu sul lu taxawal ko dinaa la jox cinq millions ngeen taxool seen projet ndekete boobu moom du ko fekkee waaw dafa am ñu gunge woon dafa am ñu fi ñëwoon seet si ma ñoom laa doon gunge. ok dafa am sama xaritu kilifa yi fi ñëwoon <clears throat> ñoom nag laa doon gunge léegi nii. d'accord euh, Serigne Medoune Seye borom tawfeex xam nga ko. xam naa ko maa ngi dégg turam. moom laa doon gunge mais dafa am affaire bu ndaw bu ma xaw a jaaxal nag. Mhm. parce diggante bi ma génnee ñëw ma dégg Seynabou dañ ko yóbbu police. bu lan la war def ba bëgg police. wa dina la jaaxal nag ndax bi ngay genn xew nga fi bàyyi nga jëmaat ñu ne la borom xew bi yóbbu nañ ko. waaw mais loolu nag tëj na sama bopp. jaxal na ñëpp bet na ñëpp. waye bu bëggee dégg dëgg. dañoo tooñ osé. tooñ osé ci lan. osé miñ tuumaal ni. Hmm. moom moo Fat na fi mbay. Hmm. osé ndeke deful dara. Seynabou hmm. moom moo faat na fi mbay. am na yoo xam ne. yow bu amee tamit waroo kaa nangu Seynabou nan lay bokkee ak Nafi Mbay di faat Nafi Mbay information moom ak lu mënti xew ci àdduna na nga ko gëstu ba mu leer nga soo koo wax waaw bañ ma koy wax sax buñ yemoon fii li nga wax laay wax ci duma ko gëm waaye man si mu damay laajte parfois est-ce que Seynabou ci seen askan la bokk ah, mais ci la bokk c' est moom Seynabou li mu capable la def Seynabou gisuma ku ko gën a yées ci kaw suuf. Seynabou moom capable am loo ci wax am na loo bàyyi waaye nag capable bay rey ku mu bokkal moom loolu moom man gëw ko. baax na gëw ko parce que. la bàyyi nga si sa bopp. Seynabou moo def lii. mu ngi noonu yaa ngi foofu. mais kii vrai doomeraam Seynabou lan moo tax mu nekk imbécile kii imbécile dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kii. booy wër bu ba ba ba romb Seynabou dootoo gisati doom. kii kii kii kii kii du nit ku baax. nan nga mën a bokki nit ki nday wallaay kii lu ma ko bëgg a wax ko te juum ngeen de. juum dëgg ngeen def waru leen woon a nangu police di yóbbu Seynabou kii da ngeen waroon a bàyyi man ba ma ñëw jëflante ak moom li may jëflante ak moom billaay wallaay su ma fekkoon fii ci kër gi ma jëflante ak moom ba mu xam ne jëflante nañ gis nga fee nafi mbay nekk foofu mooy place Seynabou man fee ñu ko yóbbu mooy sama place dafa am loo xam ne kenn du ko maslaa te Sénégal la ñu nekk da rey nit. suba nga génn di daagu nu mu la neex dafa am loo xam ne nag jaamu yàlla ci boppam ñoo koy fajal seen bopp imbécile piir mooy kii kii vrai doomeraam la mais yéen ñim fi fekk matoo leen kii bala ma woon génn kër gi leen ko waroon a def lu metti te man duma ko bàyyi de kii ak fu mu mënti nekk dinaa ko fi fekk def ko lu metti ndax kii kolosaar dëgg la imbécile nan ngay bokkee ak nit di ko kii doomeraam la waaye kii kii de yàlla xam na ni bëggatuma laale ak moom ci lenn lenn lenn lenn ci kaw suuf ba yowmal xiyaam sax bëgguma sax jàkkarloo ak seen man affaire bi sax dafa ma lii lii man duma ko bàyyi sax mu sedd man police lañ ko yóbbu kii ma fi ñëwoon sànq inspecteur mbay moo ko fi jël si Seynabou bu foogee ne day tranquille day nax boppam man palaasam laa jëm moom mu jëm palaasu Nafi Mbaye xam nga man lii ku ma ko waxoon du ma ko mës a gëm. Hmm, lu tax. ndekete yàlla rek moo mën maa yow tey ñoo toog. Hmm. man nu yàlla soo koy wax fii ngay fanaan li yàlla mën lii moo ci gën a ndaw xam nga ñun dañuy bëgg mu bëgg te moom su bëggee li mu bëgg mooy am. ndax hmm. faaw ñu nangu dogalam. damaa xam ne ni ma sonalee woon yaa fàtte jamonoy jaal mbaay. lii mooy nifat man bi ngeen nee tëll jaal mbaay laa la tegoon. ku jaal mbaay. yoo xamoo jaal mbaay moo fi woyoon bete bete. ma bëggoon nga tegu ci yoon rek. Eh, moo moo taxoon ma lay sonal parce que mel ne dama gisoon lii. Eh, gisoo woon dara. daf ma dénk tuuti xam-xam nag xam naa du ngeen ko xam. dégg ko waa da nga fàtteeti tamit sëy na bu ba mu lay tiital. Allah yaa dem teg ko fële. waaw dañuy waxtaan moo tax na nga war a teg wax leneen te bàyyi loolu. man booy wax ay li yàlla mën. ak li yàlla di def man maa ci war a gën a gis sama bopp ndax man ku ma ne woon man semu dinaa changer régler. nekk beneen nit duma ko mës a mhm. xool ma tey macha allah maa ngi liggéey di am xaalis hmm, di dawal sama oto di tukki dëkk bu ma neex am sama kër mhm. dama doon garde tey dañ may garde loolu mooy àdduna mhm. am na boo fàtte de hmm. teg ci kumba nag nopp la ba doof waaw mais loolu moom man jaaxaluma parce man xam naa ne ku ñàkk a baat ah. hmm. ma ma hmm. hmm. waa léegi nag moom laa lay woowee. daba booy bi nag. non daba booy moom dootoo ko dégg léegi moom sama bébé laa lay wax. sama bébé rek ngay dégg. yaa ko wax de. mooy am. kon baax na. bi ci topp nag bëgg naa ñu waxtaan ah. parce que leer na ne yow fii ñu nekk ni du suñu néeg néegu jabar alsaan bi la woon te comme fee léegi jël na jabar alsaan bi te comme Nafi moo ko waxoon loolu day rafet comme nag yàlla dogal na am naa sama kër léegi pare na dama bëgg nag ñu déménager wu dem sama kër mm-hmm. installé wu bu ko defee ñëpp xam ne Sémou kilifa la dëgg la nag bu ñu ko defee papa Moussa mën na wéet ndax xamuñu kenn ku dul yow mais nag lu mënul ñàkk faaw mu am mag ñi dañuy faral di wax ne bàyyi ci say oom te suñu sama moo ko dàq comme am naa sama nag ñu dem fa. man de loolu awma lu ma ciy wax ndax yow moom loo wax rek loolu laay def man maa ngi sa ginnaaw yaay sama kilifa. lu dëgg. dëgg la. yéex na tàkk. noonu lañ koy doxalee rek. Hmm. macha allah kër gi nag lépp jàmm. Hmm. vie nit ku baax la soxnaam nit ku baax la woon ba yàlla jële ko fi gis naa niñ ma jàppee gis naa niñ ma téyee mais nag lu suñu neex neex neex neex sama daf koy gën hmm. comme nag yàlla suturaal na ba am naa fu ma mën a wéeru ji ñu dem wéeru fa rek. incha allah jaamu fa yàlla. mais nag bëgg naa ci yow lool. kontaan ci yow. li nga sañse sax dafa rafet. yii madame madame Semou. Eh. ba pare yow ma def sama noir nga ñëw def noir. c'est que man nag dama jóge man moom eh. boobu am dama jóge loolu moom sama foor la quoi. man xam naa ne xool day gisee. xam naa ne noir ngay def moo tax automatiquement ma laal noir. eh man bëgg naa lii de. mais nag dafa am lu yàqu tuuti sañse bi mooy ataaya nga waroon a teg ñu waxtaane ko man dama bëgg caayan. bu la dara metti damay ñëw summi bii ndànk laal sama lu oyof attaay yàlla léwal boo xam ne danga koy naan danga koy naan nekk nekk nii ci kaw air bi nii déggoo ma de sama bii nag li ma nekk ci air bi nii doy na hmm. ndax nii nga nekkee sama war rek maa ngi ci kaw waaw baax na xaama ñëw léegi bu la dara metti dëgg léwal bu fàtte dara jeex na baax eh, <laughs> من جتا يتابي وسمو كون خلات تماجن وهي على ركمن على ركه دوا ما في بيت جنون نمخنا تاني وقتان بومي نيان ماني سولو نفي بيت جنون نفي بيت جنون نمخنا ne ma alsaan mi mu gis ci tànk wàccu la nekk te bis bu loolu amee ñaanoon na ma ne bul mës a génn kër gi ba ne ma bu loolu amee moom ci boppam mooy dem ñaanali ma la nga doon sama ñaareel alsaan day fas sa xale bi sañul loolu alsaan waaw ay fase xale bi fi nag yaa ngi yóbbu sama fit bi de yoon bi ñu jël buñ ko teggiwul seen tànk déggoo ma la wax Alassane dafa fas yéene abandonné xale bi mais bu boobaa xale bi du génn kër gi de mooy doon sa deuxième femme. man nag bizarrement bi mu dugg see sank maa ngi naan est-ce que yow laa fi fekk. waaye mosuma woon xalaat ni bébé tam boobu bu am bu ko fi fekk. ñu naa man dama bëgg na fi mbay. trop ba lu takk ci moom ma bëgg ko loolu indi bi fin bi dajalooyee bëgg ma may Seynabou ma ma ko woon bañ ndax man lu takk ci Nafi bëgg na ba yàlla dogal li muy dogal yàlla def nag yow ak Alassane ngeen tàggoo bi sa idda jotee ma ne nag comme na fi ñaanoon na ma lool te bokk na ci dernière volonté bi naa ko defal ndax Nafi dëgërul bopp ñeme na uuf njaboot te it déggloon na ma te gëm naa ni qualité yooyu noonu moom la gis ci yow ba tax mu bëgg la ba tax na li ma lay ñaan mooy saa soo jullee tey balaa nga may ñaanal walla ngay ñaanal sax sa bopp ñaan lan la fi mbay ndax fee mu nekk nii loolu rekk la soxla dégg naa sa wax kàddu yu rafet na mu bule ni ba ma sais takkee indi ma seen biir kër ma abandonné facilement dem fekki soxnaam si mu takkoon ba loolu amee na mbay ne ma duma génn kër gi fa lay des na mbay féete na ma fi yaay di féete doom féete na ma fi mag di féete rek su ma lekkee la su ma naanee moom la lu ma def na fi mbay la ba tax na papa Moussa mii mu fi bàyyi xoolee mu ko bëtu doom mais bëtu rakk laa koy xoolee ndax daf mais dañoo juróom ñu ñëpp uuf ñu boole ñu tëye te li mu doon def benn wala mu koy def ñaar dinaa ko duble man def ko bañ seeg léegi def na ñeenti weer musow def lu ma nakari musow xool ko bët bu ma metti am na sax nouvelle bu ma la war a annoncé fan gis nga ne sama yaram neexul naa mhm. ngi feebar dem na hôpital yoo xam ne je suis en état de grossesse de trois mois bañ may defal écho bi xawoon naa tiit mais alhamdulilah doom bu jigéen la am. doom bu jigéen tey dafa mbay ci dundam gi yëpp moom rek la bëgg. te saw leen rek laa lay ñaan doom ji ma ëmb bu juddoo imaam bi na liqaam ci ay noppam Nafi Mbaye Nafi Mbaye Nafi Mbaye ba muy ñetti yoon naa leen di sama dund. doom bu ma am ci àdduna na fi may laa koy tuddee alhamdulilah te li nga ñaan nii wallaay jër woon sax nga ma koy ñaan naa man li des ci sama dund doom bu ma am na fi mbay laa ko fas yéenee tuddee